indi naa ko fi ay yoon nag waaye wax na dëgg nee naa leen nag. Euh, lu neen bari na ñoo xamante ne li na am ci lislaam ca saaba yi leen tàmbalee ku ci mel ni Seydina Abubakar yonent bi fanaane na ko ñaanal ba fajar te lu mu doon laaj ci lislaam la rek si wàllu wërsëg kenn ku ci nekk joxe la nga man Seydina Seydina Aboubacar ñëw joxe lépp te loolu nee nañ wërsëg moo tax mu am ko wërsëg ci ngay tabaxe ay jumaa ci ngay tabaxe ay daara ci ngay yore xale yi kon daal wërsëg baax na bu nekkee ci loxo yu baax waaw bu nekkee nag ci koo xamante ne xañ na safaanu baax mën naa bañ a baax waaye am na ñoo xam ne buñ ko amee lu baax rek lañ ci def bu ko defee ñaan yàlla rek moo koy mayee ndax wa ma min daabatin fi lardi illa ala llahi risqaha suñu borom nee na picc yi naaw sax Euh, pepp ma ni for yàlla nee na maa leen koy wërsëgal mhm. léegi nag euh, wa maa min daabatin fil ardi illaa alaa llaahi soo ko bindee 313 <laughs> Pape maa ngi lay ziar soo ko bindee 313 maa ngi lay ziar wa maa min daabatin fil ardi illaa alaa llaahi rizquhaa nga bind ko 313 nga bind alam nashrah laka sadraka wa waddaxnaa anka wizraka allazi anqada zahrak wa rafaxnaa fa inna maa al usri yusran inna maa al usri yusran fa izaa faraxta fansab wa ilaa rabbika farxab nga bind ko 313 moom it mhm. nga tege ko ne bu ko defee nga wut kilo ceeb ak kilo suukar nga dem ci àll ba wër ay këri xorondaw xorondaw xam nga nag daa bëgg ceeb dafa bëgg dugub dafa bëgg suukar mhm. su la neexee nga am kilo ceeb kilo dugub kilo suukar nga jaxase lépp nga dem ba ci kër xorondong yi nga ni xorondong yi maa ngi leen di indil seen wërsëg maa ngi ñaan yàlla ci seen barke ngeen ñaanal ma yàlla jox ma sama wërsëg mu yokkal ma sama wërsëg wërsëg bu bari woow nga sottil xorondong yi noonu ñuy kontaane di ko jëfandikoo boo paree nga tubb ci suuf sa suufu xorondong yi loolu ñuy wàq nga boole kook 313 wa maa min daabatin yi nga bindoon ak trois 313 alab nasara yi nga bindoon mm-hmm. nga sangoo ci altine danga nga ci def nag juróom-ñaari parfum yu neex yu bokkul ci saafara si nga sangoo ko altine talaata àllarba lii képp ku ko def insha allahu rabbi da ngay dimbalee ci sa famille waaye ku dul yàlla du la dimbali. am na rawatina jamono yi nga ko defee moom dana doy waar lool ndax bunt yëpp dana ibbeeku. macha allah waaw da mujj sax rus ci xéewal gi la yàlla jox ndax bari ko muy bari. beneen bi ci topp muy wàllu werd rabbi indi li ma anzalta ilayya min xayri faqir bari nag kilifa yoo xamante ne ñu ngi may dégg li ñuy yëkkati mën naa am kurus sax moo ci gën a diis te seen aajo yëpp a ngi faju te rabbi inni li ma anzalta ilayya min xayri faqir lim bii dañuy saxal di wa def muy quarantien sax waxtu sax sak waxtu julli moom ci ci julli yuroom waxtu julli farata yi lay dox pour boo jullee nga def rabbi inni li ma anzalta ilayya min xayri faqir xëcc benn per rabbi inni li ma anzalta ilayya min xayri faqir rabbi inni li ma anzalta ilayya min xayri faqir suñu borom dina la musal ci faqir faqir mooy ko amul dara hmm. doo ñàkk doo ñàkk. am mooy foo suñu borom da lay dimbali. bal yaddaahu mabsuut sataani yunfiqu kayfa yashaa'u képp ku bëgg wërsëg te ko liggéey bal yaddaahu sataani yunfiqu kayfa yashaa'u suñu borom dani ci aaya bi man yàlla waxtu fajar wu nekk damay duy sama ñaari loxo ba mu fees dell xéewal mu ni suuf sataani ma wàcc ci asamaan yi gën a suufee yunfiqu kayfa yashaa'u mun yàkkamte ku ma ñaan ba ma may la. war nañu tase ak moom nga xam ne ak ak tabe ak tabeem lay wax foofu. léegi nag bal yaddaahu googu ma busul sataan yunfiqu kayfa yashaa'u boo ko dee wax balaa balaa jant bi mm-hmm. xëyee rek dem nit bu xëyee daa war a léem boo xëyee nga def boo jullee ba pare nga def bal yaddaahu ma busul sataan yunfiqu kayfa yashaa'u 60 heure boo xëyee nga def ko incha allahu rabbi xéewal googu suñu borom di joxe. dana la ci bàddil ba nga yëg ni bàddil na la ci bi ci topp nga xam ni moom boo ko defee bis boo xëyee def ko bis boobu yàlla dana la may wërsëg balaa jant bee so te loolu man dama ko jarbo billaahi lazi laa ilaaha illaa yàlla mi amul kumba xam na ni mu musumaa xëy te liggéeyuma ko waaye mu musumaa xëy ba ngoonte suñu borom joxuma wërsëg ndax man li ma yéene sama bopp laa yéene jullit yi may seetaan yépp laa yéene jaami yàlla yépp muy lan. xam nga dañ maa tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa bari na ñoo xamante ni li liggéey di ci gis njariñ duñ ko joxe. Mm-hmm. te yonent bi wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin suñu borom da koo yebal ci nit ñi mu doon yërmaande. kun ko tuddee nag di nga jël ci moom sax bu dee benn jikko. Mm-hmm. allahu yaa xayu yaa xayumu yaa kam sax sasum yaa waliyu yaa latiif yaa fattaax yaa rasaax yaa jawaadu yaa kariim yaa muxti xëcc benn per ni war allahu yaa xayu yaa xayumu yaa kam sax-saxsu mooy talzan bi nga ni yaa xayu yaa xayumu yaa kam sax-saxsun yaa waliyu yaa latif yaa fataax yaa rasaax yaa jawaad yaa karim yaa muxti ku dugg ci kii bi di nga ko gis nga déglu ko bu baax mhm. heure boo xëyee nga def ko 120 heure boo xëyee nga def ko 120 nee naan 40 jours boo ko ko defee ci ngay ci nga ciy tàmbali am ijaaba ijaaba mooy ci la ci yàlla ci la la yàlla tàmbali di la ci wuyu heure boo xëyee def ko dem sa yoon booy wuti xaalis. loo wut loo wuti dajeeg moom. jarul toogaay bu yàgg. ci xaalis rek wala ak bu fekkee ci xaalis nag dina gaaw. Hmm. ndax heure boo ko defee bis bu nekk boo xasee am 40 jour mën na laa yónnee somb la bett te xaalis bu la bett rek lan lay yónnee boo foogewutoon kon foofu lan xam ni mënees na faa yem. Hmm. bisimilah irrahmaani rahiim it ku koy liggéey bis bu nekk sak fajar ñetti téeméeri yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn du la yërëm. trois téeméer mooy xam nga bisimilah rahmaani rahiim ñëpp mën nañ ko heure boo xëyee sa kurus gi nga wër ko ñetti yoon muy 300 balaa jant bi génn yonent bi nee na boo ko saxalee dootoo demati ci kenn di sukk ci wetam di ko di ko wax soxla sa soxla yëpp yàlla nan la ko fajal. kon gars bu nu jaaxlee. nañ dem ci sunu borom sunu borom ci boppam moom mooy faj aajo yi. Mm-hmm. doomu aadama bu la joxee tey bu subaa mu joxaat la ginnaaw suba boo ñëwee mu tëju la wala mu jéppi la. Mm-hmm. bu dee bu doonee sunu borom nag li mu yor du jeex te doyewu ko dara. dëgg la te jaami yàlla yi rekk a tax kon foofu la ñuy wàccee sunu kàddu soxna Aïcha. jërëjëf di nuyuwaat mbokk yi ni seetaan. ak euh, gars yi ci machine bi di ziyaara baax papis mbay sama xarit di wax ni képp koo xam ne dangaa bëgg ay listixaar ndax am na ñu koy bëgg bëgg xam li ngay dund ak li sa kanam ak jafe-jafe bu mën a nekk sa yaram ak lu ko waral wala ngay bëgg a dugg ci sëy bëgg xool seen tabian yi euh, ba ci benn ni ñaari ñi ci sama wet da ngeen di xool ba pare mbir yi ah, sama jëkkër bu ko defee da may woo ci 78 530 69 81 78 530 69 81 yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee euh. lépp mat a seet waaye ñeent yi moo ci raw muy bi ci njëkk mooy ab sëy mm-hmm. sëy dañ koy seet ñii seen rawxaan xawa yu li ñii maax yi ñii trois bio maanaam ñii sawara leen ñii ndox ñii suuf ñii ngelaw ñenn ñi feebar bu yàgg yonent bi nee na da koy xool. feebar bu yàgg léeg nit tawat dem ci docteur yi duñu gis tawat bi. Mm-hmm. loolu da koy xool xam ba xam parce que rab dafa am seytaane dafa am. Mm-hmm. te dañuy dugg ci nit di ko indil ay jafe-jafe. nit yi day liggéey nit du am kaaraange suñu borom maandu seetaan leen mu mu dal ndax yàlla àdduna sunu borom amalu ko solo. Mm-hmm. léeg-léeg nit jekku nit nit tooñ nit ba pare liggéey ko jàpp ko yàlla dinaa bàyyi ba nu ñëw ma àtte leen. moo tax loolu dañ koy xool beneen bi ci topp mooy tukki mm-hmm. dañ koy xool booy jógee ci dëkk di dem ci beneen dëkk dañ koy xool kilifa yi bu nu mosaana jógee Touba jëm si Ndakaaru wala ñu jógee Tiwaawan jëm si Ndakaaru dañuy xool yoon bi nit yi dafa war a xam sarax saraxam xam tabiaam loo xam bu xëyee day génn sarax nga xam ni rawxaanam moo koy laaj moo xam soow la moo xam ndox la moo xam ceeb la moo xam fooy balan la moo xam sondeel la moo la nit dafa war a xam loolu ndax suñu borom buy wax danaan waxumaak euh, ñi nga xam ni amuñu xel yéen borom xel yi lay waxal te nit ki bu amul xel rek aysa hmm? mook bàyyi ma ñoo yem la question euh, am par exemple ñoo xamante ne ñoo bëggante euh, di génn lu ma cinq ans hmm. après ñu war a marié ñu dem xool kenn si ñoom dem xool diggante bi waaw àndu léegi ñu ne ko àndu léegi est-ce que moom dafa war a bàyyi ko jigéen ki wala ku góor gi dafa war a wala ku jigéen ko góor gi. waaw xam nga ànd dafa bari façon ci wàllu xool ànd ci suivre lañ koy xool. Pape wax na dëgg laaj na lu am solo nag. laaj na lu am solo waaw. <laughs> mais loolu ndax nit ki ah xam nga nit ki nit ki léeg-léeg mu bëgg nit. wax na dëgg ba tolloog moom foo xam ni bu nee ko baaxul rek. man naa man naa mën naa métti. mën naa heure ah? eh, la xam nga am na ñoo xam ne bala ñoo dugg yi sëy bala ngaa sori ci mbëggeel gi da nga ko war a xool mag ñi noonu lañ daan def buñ la mosaan a takkal ci nit sagar dañ koy xool bala la cee takkal sagar. mais suñu nee la bàyyi ko c'est pas c'est pas. bu nu xoolee bu nu xoolee baaxul. ay sarax. am na kafaara boo xamante ne ci wàllu mbiskit ak dugub soo ko génnee am na am na nu muy bañ a baaxe boo ko génnee mën naa bañ a defar lool. jërëjëf mën na ko defar mais am na noo xamante ne du ko baaxee kenn mënu cee saraxee lu tax mu baaxee. ndax dafa am koo xamante ne boo ko takkee. Hmm. xam-xam laa koy wax da nga koy téeñu wala mu téeñu la. dinañ hmm. la téeñu wala nga téeñu la parce que ñooñu moom mooy ànd bi gën a danger am na koo xamante ne bu ngeen àndee boo ko xoolul boo doonoon ku am wërsëg it di nga yalwaani. am na koo xamante ne bu ngeen àndee. foo toll ci feebar ngay dëkk léeg-léeg nga gis ko xam ba mu duggee ci sëy ba léegi mënut a am na koo xam ne boo àndee bu ngeen àndee bis bu ne ci histoire ngeen di dëkk. mais loolu est-ce que doy bidaa rek. Ah, non du loolu xam-xam bu wér la ñu indi ko def ci loolu débat la temps bi jeex na ah, parce que mbëggeel dafa tiis bi jeex na donc faw ñu loolu eh, kii faaw see loolu faaw nga indi eh, benn jour ñu waxtaane ko ah loolu am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup ci secret yi yal na yàlla gën a yaatal xam-xam yi ngay jaajëfal bu baax dañuy am retour yu yu yu macha allah ci rubrique yi nit dañ koy topp bu baax a baax. Kéna merci beaucoup. Aïcha à demain. mbëggeel dafa diis. Mm-hmm. donc dafa bëri doole xale mi wëy na ko. donc euh, bu leen bu leen tëb rek i dem di xooli ji daal <laughs> wóorul. am na lu ma yàlla boo leen àgg foo xamante dafa sori dafa sori yéen ñaar ngeen ànd. ñu ne par exemple ci ñu mu xoolal. mais loolu laa ko laaj. yàlla bu mu xool ba ne leen baax. baaxul doguma la ah, xoolal naa ci nit doguma la xoolal naa ci nit. si yàlla musal. ni ko baaxul boo ci duggee baaxul ci yow. baaxul xale yi dañuy insister nag. te moom moo ma moo moo ma wax ma xoolal ko ma xoolal ko mun ma baaxul ma xoolal ko ni ko baaxul mu xëy. ni ma tur boobu sax tudd ma ko am na beneen tur bu ma woowee ma ne ko sëñ bi man moom jox nga ma jox beneen tur. <laughs> <laughs> yow jox nga ma sa tur xool naa ko àndul mu a ma dan may woowee naa nga man ne ko dee demal nga beneen ma xool. <laughs> surnom ngir bañ a bàyyi ndaw si la. ndeysaan bëggee dafa diis. Pape jaajëf à demain. Kajo. dafa bëri doole incha allah merci à toute l'équipe merci à l'équipe technique ñoom Weuz Bamba Mouhamed Babacar Khady ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal 10h da ngeen am seen flash d'information 11h Sister Maria dina ñëw ànd ak yéen dans la mi-journée l'avant-première lu mooy loolu programme bi day daal di wéy à demain incha pour un autre numéro de la matinale jaa ngeen jëf.